auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla aji kawe ju baax ji ki ñu tànn loo woon te ñu tànn ko ca kaw ba ñu nekkee ruuxi kese boroom yërmandeeg mbëggeel gi nga xam moo ñu indi ci àdduna ci ay sabab teew indi ñu fi ngir ay natt te bàyyiwuñu noonu niñ ko wax ci ñaari émission yee jiitu rek nga xam ni sunu maam aadama seen erreur ba ñu defoon ci kaw ba tax ñu wàcce leen fii ñu réccu ko tuubal sunu boroom nga xam ni tuub dafa mel ni ay pneu ci oto nu ko ku baax ki waxe woon rek nga xam ni sunu maam aadama ak suñu maam Awa noonu lañ jéggaloo sunu borom subhanahu wa taala bu ko neexu du leen jéggal waaye da leen a jéggal ndax xam na reconnaître nañ seen erreur moo tax def dara reconnaître ko lu am am solo la xam ni yow juum nga nga reconnaître ko lu am am solo la nit ki lu mu tàng-tàng ak lu mu mënti mel bu ñëwee wax la ni lii yaa ko def même bu fekkee sax defoo ko boo ko ne maa ngi tub rek maa ngi jéggulu rek lépp mën a maa ngi tub lu mu day seddu yi asamaak aji kawe nga xam ne ndeysaan yërmande la làmboo ak mbëggeel jëmale ko ci ay jaamam maam aadama wàcc na ci suuf réeroo na génn na ci teraanga yu màgg yooyu ko yàlla defoon ci àjjana moom soxnaam ñëw nañ ci àdduna si nga xam ni mettit coono rekk la feese nga xam loo def da ngay sonn ku am ak ku ñàkk ak ku mag ak ku ndaw ak ñëpp ci yam lépp rek loo def sonn loo def sax si tuuti rek sonn nga xam ne noflaay nga fële fa ñu jóge woon fa ñu nekkoon suñu ruux yi bëgg yàlla ba dof di sabbal yàlla bu baax foofu ma la noflaay ga nekk yàlla nañ fa delluwaat ca kaw foofu boo fa dematee boo xësee ba demaat fa rek coono yi yëpp jeex ñu ngi koy ñu koy sant moo moom ay jaamam nag moom moom ay jaamam de lu ko neex lay dogal ci ñoom yàlla kenn du ko critiqué lu tax yàlla def li déet tey jii boo amoon sa mboob walla sa ay bant loo mën a am nga moom ko bu la neexee nga ñoŋal yëpp bu la neexee nga jël yi taal bu la neex nga taal ñëpp bu la neex doo taal dara ñëpp yaa moom moom la yàlla mel si yàlla moo nu moom subhanahu wa taala lu ko neex lay def si ñun wax moom moo nu moom moo bind mooy sunu borom subhanahu wa taala ñun ay jaamam la nu loolu dafa war a leer ci bopp nit ñëpp lu tax yàlla def lii lu tax yàlla def lii moo ko neex lu ko neex lay def aji kawe ji ñu koy sant bu baax liñ doon wax rek. seetaanuñ ci natt bi dama bëgg ñu diagnostiquer lu tax suñu diggante ak suñu borom nit ñi fàtte lu tax suñu borom suñu diggante ak moom ñu fàtte ba bëggeel guñ ko bëggoon ca kaw ba ba nga xamee ba ñu jël suñu ruu di indi fi dañoo bañoon lu tax lu tax lu tax lu tax lu tax ñu fàtte lu tax nit fàtte loolu il faut que nit ñi ñu leeralal leen di tax ba nga xam ni dinañ xam ñun yàlla la bëgg ñun nit ñi moom te nit ñi ñii yàlla mooy suñu boroom te nit ñi ñii yàlla moo nu moom suñu xol yi mooy boroom subhaanahu wa taala ñu ngi ci biir suñu maam aadama maam xawaa wàcc nañu ci kaw suuf fekk fi coono yi fekk fi natt bi li may waxoon keroog suuf mel ni gétt ci biir kaar ci kër biir kër ci teranga ji nga jugoon nek fu neex xewal lu ne fekk la motax su non bi koy and ak mom dam ko xamut ñun ñep ñu ngi ko ci mam adama képp ko and ak mom ak riira tax nga and ak mom fee mo sun buñ fa nekkon ba tey xewal rek lañuy dundé teranga rek lañuy nek ba ne ak fa xewal yu am solo yo xamé ni macha allah di gis sunu sang bu màgg bu kay bu rëy boobu borom yërmande mbëggeel jooju nga xam ne dafa baax lool ak a baax subhanahu wa taala waaye ñu wàcc ñu fii day ndeysaan bàyyiwuñu bu ñu fàtte sunu borom ba mu ñu bindee jël ba mu bindee maam aadama jël benn ruux dugal ci wax malayka yi ñu ñëw sujjóot nii ñëpp sujjóot mu am ko sujjóotul kooku dafa tëkk woon doomu aadama dafa ni yalla sunu borom kita tax nga def ma ne wàcc ma ba saa taxaw bu ko nit ñi faté sa suñu wax danañ ko ci bolé dafa tekk doom adam ni ñu upp ci doom adam ne leen sank te danañ dem fa mu jëm nga xamni sunu borom tamit dafa garanti ko niko man samay jaamu bop man manul ci ñom man ma di protéger sama bop mënul ci ñom dara biñ ñu indee ci kaw suuf bakkan bànneex àdduna réer ak moom moomu di kiiraay suñu diggante ak suñu boroom nga xam ne il faut que nit ñi ki ñu yee ko moo tax ñuy wax toujours ay waajur ni mu amee solo ci nit ndax yërmande sunu borom subhanahu wa taala nga xam ne da ko njëkk a jaareel ci ay waajur muy yaay ak pàpp nekk yërmande yàlla ndax ni mu defoon maam aadama maam xawa bu ko neexoon ñëpp na lañ defee putt putt ci suuf waaye kan mooy kon kan mooy kan mooy kan mooy euh, kan moo taxaw boo ñëwee ci suuf nekk ci àdduna yow kese ni putt ci suuf nu muy demee xam nga ñoom maam aadama maam xawa ba ñu nekkee wañee putt ci suuf jaaxle nañ walla ak teraanga jën nekkoon ak xéew la ñu nekkoon njëkk njëkk ñu indi la ci àdduna su tàng si àdduna ci bi nga xam ne moom yéeme na lu mu fees dell ak ay mbir yoo xam ne day waar la waaw bu yàlla continué woon di wàcce noonu nit ñi fu nit ñi jëm waa aji ka yoo ju baax ji borom ma mbëggeel gi utal ñu ay waajur ci yërmandeem ak baaxam ruux di jóge ci kaw di ñëw ci dugg ci biir waajuru doomu aadama bi ñun ñu jóge ci ñaar muy ndox mu jóge ci góor ak jigéen ñun ay ndox kese la ñu woon ci ndox lañu yàlla bindee lu am ruu nii ci ndox yàlla bind ko ñu jóge suñu tuuti di màgg suñu biiru yaay di suñu biiru yaay organes yi nekk ci yaram yépp suñu boom formé ko nga xam ne nit ki science dem na ba trouvé ni ko alxuraan waxee day mel ni sens yi mooy loolu di manque ndox di manque deret boo koy soo gis mu nee na mel ne kole ci ji paroi bi mais utérus bi nekk fa di màgg ci kattanam ak mbaaxam ak yërmandeem ak xarañteem mu développé doomu aadama foofu ba mu màgg fa daal di génn ba heure juddoom jot ni mu placé organe yi cerveau ba yaram bi bopp bi tànk yi bët yi gémmiñ gi nopp yi ci biir li fay dox yépp di ay appareil appareil respiratoire appareil digestif muy appareil bi tax ngay noyyi appareil te appareil bi tax sa poumon air bi di dugg ko wàcc ah cœur bi muy xol bi appareil digestif bi nga xam ne nit ki day lekk yoonam nekkatul ci ci lekk ga mu lekk mu dugal fa ay appareil lenn lu ne mu placé ko médecin yi bu ñu xoolee nga xool bu ñu xool boo ñu xaree biir même xare sax boo xaaree nga gis benn bu ne fa mu ne rek sax te loolu lépp ngay fonctionné ka kay fonctionné la di yàlla aji kawe yow sa yoon nekkatu ci yéey nga pare nga suñu borom ma ngay liggéey la nekk ci sa biir ci kun fa yëkkoon nga xam ni tey lu ci jaxasoo woon lu ci jógee lu ci déranger nit ki feebar suñu borom aji kawe ji subhanahu wa nga xam ni noonu la nit ki di génn ci biir yaam yaay suñu boroom jox ko ween nit ki di ci nàmp amagoo xamagoo mënagoo nekk lu ndaw sa ruux a ngi sa biir waaye fàtte nga xamatoo ndax mun sa baalatoo suñu borom jox la waajur moo tax waajur lu tar jàng la lu jaral tànn la ndax li ngay wax dem nañ ba science sax science démontré na ni xale bi nekk ci biir yaayam li ñuy def moom du koy yëg bañ nañ la ko bañ la wax ni jigéen juy kii bu mu tux ci bi jigéen buy lii bu mu def lii ndax loolu lépp day dem ci ci doom jafe yaay ji bu bu meree sax day yëg doom ji da koy yëg yaay bu kontaanee doom ji koy yëg moo tax c'est dangereux sax nga am nga nga am ak sa soxna nii di merok di yii yëpp doom ji da koy yëg te mën na am ay jeexantal ci moom nga xam ne waajur ju am yaa waajur daa am solo ci mbir yi waaw daa am solo ci mbir lu jar a tànn la waaw te kenn ku ne nag xamoo fi ngay wàcc moo tax ñu war a yéen ñi ñu dellu suñu borom suñu borom dafa jot ñu jël nit ñi delloo loon ci moom moom képp moom mën a régler situation yi dëkk ci àdduna bi moom kese moo xam ménage yi nga xamee ni jëmm jii di li nga xam suñu noon bi la mu ngi koy def moom dong moo ko maîtriser parce que dafa ne ko woon samay jaamu bopp mënul si ñoom dara kon dañuy fexe ba nit ñi dellu nekk jaami yàlla yi ñu reconnaître na ni yàlla mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom te moom kese moo mën a noot noon bi nit yàlla yi bëri def na leen ko ba ci sëriñ Touba mii mu ne ko noon bi ni kii maa ko kii mënoo ci moom dara képp ku bëree moom mën ngay bëree xam ni sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam daf noo bëgg sunu yaay di nàmpal sunu baay di ñu toppatoo mu del lépp suuf si mu lal ko ay xéewal ak kii foot wëlbati ko dis gis jëfam yu baax jëf bésam yi te lépp mu bindal ñu ko ni yéen nit dem bax nit ki am juróom benn weer mu jox ko ay bëñ lépp li ci kaw suuf mun la nit ki jëlal barkeeloo ko xéewloo ko yow yaa ko moom waaye sa jëmm ji sa xol bi maa ko moom man sa xol boobu laa mën a dëkk mënumaa dëkk ci juróom-ñaari asamaan moom maa dëkk ci juróom-ñaari suuf mais sa biir xol bi leeral ko setal ko yaatal ko ma mën caa dëkk aji kawe ji dañuy réer àdduna bànneex bakkan réer ak suñu noon bi réer nekk li gën a réeral àdd réer moo gën a sonal nit ñi sax réer a gën a sonal nit ñi ndax nit ñëpp ko bëgg mais ñàkk a yeewu ruux ga nekk ci biir aadama amul ko koy yee wan ko ni yow fee nga jóge woon fa nga war a dellu fii rek la fenn indi pour un laps de temps fii nekkoo fi abadan ay milliards doomu aadama aw nañ fi dem nañ te nañ fi jaare dem noonu nga fi jaare dem fii dañ la fee indi képp pour natt la waaye nag xamal ne am na ñoo xam ne ñi ngi fi ngir réeral la ba doo xam leen wa suñu borom ba nga faatu ci réer ëllëg nga dem ca safaan ba yewul yow doomu aadama bi sama mbokkum jaam mi yewul xamoo dëkkoo fii dañ la fee indi ngir nattu yàlla jox na la lu mu la jox ci xéewal yépp yewul réer doo nga la jàpp waaye yow yàlla nga bëgg yow borom doomu aadama bi yàlla nga bëgg aji kawe ji baax ji ki nga xam ne mooy xafuur di xafuur di rawuf sun borom bi nga xam mooy raxmaan di rahim ki nga xam mooy waduut bëgguñu lool ku lay saytu toujours di la xool yërëm la lool sa baay sa yaay yàlla moo leen la gën a bëgg ndax moom moo la tànnal ay waajur yooyu ñu lay saytu kooku moo la tànnal ay waajur bu ko neexoon du la tànnal yi waajur mais moo la tànnal ay waajur noot leen ci ñu bëgg la ndax accouchement képp ku ko xool rek ak métit bi ci nekk bañ na ko booy accoucher boo accoucher da ngay wax ni parce bala maa amati doom ndax métti te pourtant bu ñu nee nii rek fàtte nga ko bëggaat beneen la nekk ci accouchement la nekk ci ëmb nekk ci accouchement nekk ci yore doom ak dépense yi yore doom ak coono yore doom doom ji feebar nga yëkkati ko yóbbu bu fekkoon yàlla dugal yërmande ci diggante waajur ak doom kon yàlla kon doom yaay du ko bëgg mais aji kawe ji moo ko def indil ñu ko moo tax yaay lu jar a tànn la yaay ji di nàmp bañ a nàmp mer bàyyi yaay doom ji yooyu yëpp dañ ko war a jàngal nit ñi dama fay jaar ak jàll waaye réer moo sonal doomu aadama yi mais nit ñi yàlla la ñu bëgg ndax àdduna dañ ko organiser noo xamee ni bëtu nit ñi nopp nit ñi gémminu nit ñi dañ leen a jawale ci fenn rek ba fàtte loolu aj aji kawe ji te ñàkk fàtte googu ñu fàtte aji kawe ji moo tax ñu ñu nekk ci li ñu nekk tey jii ndax nit ki boo fekkee ni ruuxam dundul di malaaka nga xam dafa war a am lekk lu mu war a lekk muy sabal yàlla muy bëgg sunu borom muy al tawxiit di jëf-jëf yu baax bu fàttee lu amatu ko lu muy doon ab mala lay doon bu ko defee ñu conduire ko ci loo xamee ne muy def yu ñàkk yu doy waar yoo xam nit ñi dañuy def loo xam ne da nga ko nit ko nit mën a defee c'est parce teyuñu ko dañ leen a réeral waaye nit ki lu mu nekk rek yàlla la fay wër lu mu mën a nekk yàlla la fay wër lu ñu organiser sa bët yi loolu lay gis sa nopp yi moom lay dégg nga dem cliquer ci internet fekk fa xale baa ngi dem di def ay recherche ci internet bu nee ubbit rek gis fa lu mu fay gis safaan dal na ma benn bis waxoon naa ko ci benn waxtaan dugg ci oto jóge ndakaaru am ko dugg ci biir di jaay carte mémoire damaa duggal carte mémoire gis ñaar nit ñuy sëy góor ak jigéen ci sëy waaw loolu loolu pour lan la ma jël waa ji ni ko yow carte mémoire bu jaay lu tax li ne si mu ne in ma changé la man ko bëggatuma carte mémoire jël sa carte mémoire te fekk moom defu si dara sax waaye ña ko def ña nga ca kaw xam nga ne xale bi nga xam léegi dañuy ni ñuy wax ni ñiy provoqué bànneex ci nit ki ñooy déclencheur u bànneex dafa am ñu ne ci ginnaaw di déclencher bànneex nit ñi xam nga ni moo seen xale bi nga xam dafa jël portable am ñu jël carte mémoire def ci njikeen guy see ak góor wala góor guy see ak góor ñu dugal ko ci xale bi gis ko déclenché nañu li nekk ci mun muy bànneex xale bi mel du ko xool bu dee ñëw mu nëbb ko seet di ko xool bu yaam ñëw mu nëpp wala papaam ñëw mu day dem ba ne da koy pratiquer mu dem ci internet day seet dara lu positif cliquer génn góor ah dafa am jigéen juy seet góor nga gis ku ñuy sëy te xale bi seetu fa lool ñoo ko fa dugal ak kapaare xelu nit ñi ndax xel xara la ni ma ko doon waxee xel mi bët yi nopp yi gémmiñ gi lépp day da ubbeeku ci biir xel ñu accaparé loolu lépp ba nga xam ne nit ki daanaka yàlla duñ ko ko waxal lu muy dégg lépp ci àdduna la jëm lu muy dégg lépp lu si lu koy réeral la jëm ba nga xam ne loolu lépp day jël bànneexam ak bakkanam ak lépp jëmale ko ca loolu dañ ko provoqué waaye yéen nit ñi yeewu leen yéen yàlla ngeen bëgg loolu ñu leen provoqué lépp fii la yem te lu mu leen bëggal lu sànq leen ëllëg ngeen dem safara te ñun bëgguñu ngeen dem safara dañoo bëgg ñëpp dellu ca yàlla yéeg xool suñu bët ya ca kaw yéegaat ca kaw ni ko yàlla yow aji kawe ji yow la bëgg waaye réeralaate metti na moo gën a sonal nit ñi moo gën a sonal nit ñi te loolu lépp déclencheur yaa ngi ci ginnaaw ànd suñu noon yi waaye nag nit ñi nga xam ne nii ñoo toog fii bàyyi yàlla di réeral nit ñi nañ xam ni ëllëg bis sa ngi ñëw bu ñu tàqalee jëmm ak ruux bu ñu tàqalee jëmm ak ruux sa jëmm ji ruux ji mënatoo ci dara nekkal ci àdduna jëlal sa oto def ci climatiseur nekkal ci àdduna jëlal sa kër def ci climatiseur tabaxal ay immeuble di teg réeralal nit ñi defalu la neex la ngay defa ni àjjana la déedéet boo feebaree fàtte ko am nañu ay milliards lañu am te bisu jot feebar moo tax yëggatuñu milliards yi astama bu sa ruunee put ba nga xam ne ruu googu yow yoratoo ko mais ay malaayka ñoo koy jël ay malaaka ñoo koy yor te yàlla lu mu leen wax ci malaayka yi def leen ko ci jëmm ji moom la ñu def del ko loolu ba buy liggéeyal ki nga xam mooy suñu noon bi te yow moomu yow yow kooku sa noon la danga nga yaakaar ne da teral fekk sax noonu la boo xamee ne dafa bëgg yow ëllëg nga liggéeyal ko ëllëg ngeen ànd dem ca safaan ba ñun yàlla la bëgg nit ñi yeewu leen ñu jaamu suñu boroom nit ñi yeewu leen ñu ni yàlla yow la di am tawxiit gu mat sëkk ci moom xam ni mooy yàlla te kenn kenn kenn du yàlla ku dul moom aji kawe ji mu yónni nañu ay yoon jox ñuy téere jox ñu loo xam ne ci lañu war a dox di ko sàbbaal di ko jaamu wan ko yàlla yow yaa yàlla te kenn du yàlla ku dul yow bëgg ko di dox ci ay ndigalam di moytu ndiko ay tere te luñu ñu duub rek nañ tuub nañ tuub rek nañ tuub rek nañ tuub rek bu ko defee mu jéggal ñu subhanahu wa taala matuñu moo la ko gën a xam moo tax nag mu ubbi buntu tuub muy tuggoo mu tubaloo maam aadama dëgg sërëx ñu jël yëpp teg ko ci àdduna ndax nit ki di réer yow xamal yow mi liggéeyal sa fa noon bi xamal li ma la wax rek na nga yow sa xel nii fii dëkkuñu fi lu waaye amana am fi nga koy baax dara du la topp ñu indiwaat xista yonte yàlla isa ba wane lii àdduna mu ñetti nit ñoo ñu àndoon xiif lool mag lool ñàkk lool di dox di dox di dox di dox ndeysaan ngay daw di dox wër àdduna lu ne nga necca bala ngaa am dara ni ngay sonne dem ba dajale xaax ba defe ni nag mu ngoog fi ne na war ngay xewlu tëdd fàtte suñ borom nekk sa lu la neex waaw misaal moom si si yàlla Isaa indi ko nit ñi dox mu yàgg rek ñu sol muusum xaalis xiif gi jàpp na leen ñu yónni kenn ki ni ko dama uti xéwlu ñu xéwlu dama uti lekk ñu lekk dama jënd ci dëkk ba lekk ñu lekk ba ñoom yoo ñu demee ci dëkk ba jënd sunu noonu balaa di ko dogaale ni ko eh nga xas de ni mu bëree yow fexee rek boo demee na nga ut poson def ko ci si si lekk si si lekk gi ndax bu ñëwee nga jox leen ko ñu faatu ko jël alal bi yëpp dem sa yoon ña fa des ñun ñun leen mu ñëw daal di wax ak ñoom ci leen ni leen yéen kii dem mën ngeen a def bu ñuy duur leen ko mu dee ngeen jël xaalis ba ca moom ngeen bokk ko yéen ñaar kenn ku ne nag ananiya ananiya ni ko ku baax ki wax man sa kese man doomu ñi si des bokkuñu ñoom ñu ngi iñaane kële kële tamit ñu mu ngi leen di iñaane kenn ku ne bëgg jël mbir yi wacc sama moom waye ba mu banyu, ba jënd ba ñëw ñu japp ko dagal dóor ba mu faatu ñu jël lek ga lekk ñoom ñëpp ñu faatu aduna ngo fu mëna am fi koy sa jëf yu bax képp lay moom moom dong nom dong dong mo lay top sa ruux sa jëf yu bax wala nga jëf sa jëf jëfaan loolu lay top mais leneen jëf fi lay yam ki nga xam ar arwaarisu muy leritier bi nga xam moy aji héritier bi nga xam moy héritier bu mag bi ay héritiers yi ki nga xam ne moom mooy donn lépp jëlaat lépp jox ko ci ay yeneen lox yeewu leen ñun yàlla la ñu bëgg nit ñi yàlla la ñu bëgg dafa jot ñu yeewu delloo suñu borom suñu bopp moom dong moo mën a sauver humanité bi moom rek moo xam rouage yi nga xam ne suñu noon baa ngi fay am pour sànku ñu moom dong moom la mën a jàpp moom mu jopp ñu téye ñu képp ku won yàlla gannaaw wala kuy réer nit ñi ba ñu wan yàlla gannaaw yaa leen di sànq te danga kala yog jow ëllëg te foofu dafa sax fii saxut fii c'est éphémère fii demul lu ndaw la lu gàtt la ay milliards yi doomu aadama aw nañ fete dem nañ te ñi si def ku fi ñu ñoom noonu la ñuy demee rek ok ah, maa ngi yam fii tey jii ñaan ngeen suivre ëttu soxna yi waa émission yi am solo fi am waaw ñun yàlla rek lañ am aji kawe ji waaw di ñaanal mursalin yépp ñi fi yàlla wàcce ñépp ñu ñuy fàttali yàlla ak awliyaaxu yi gaa yu baax yi fi ne yépp surtout Sénégal gi Cheikh Ahmadul Khadim waaw di ak ñu mel ni Cheikh Ahmed Tidiane ñu nekkoon ci yéen ñu indi fi tarixa Tidiane ñu mel ni Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani Cheikh Ahmed Tidiane waaw mel ni Cheikh Modou Foutiyou ñu baax ñi fi nekk ñëpp rek waaw ñi fi nekk ñëpp rek wax dëgg yàlla di siyaar bu baax di sant gaa yu baax yëpp waaw di sant gaa yu baax yëpp rek waaw waaw di wax nag euh, ba beneen rek incha allah rabbi maa leen di siyaar yéen ñëpp di jëm yàlla subhanahu wa taala auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla aji kawe ju baax ji ki ñu tànn loo woon te ñu tànn ko ca kaw ba ñu nekkee ruuxi kese boroom yërmandeeg mbëggeel gi nga xam moo ñu indi ci àdduna ci ay sabab te indi ñu fi ngir ay nattu te bàyyiwuñu noonu liñ ko wax woon ci ñaari émission yi jiitu rekk nga xam ne sunu maam aadama seen erreur ba ñu defoon ci kaw ba tax ñu wàcce leen fii ñu réccu ko tuubal sunu boroom nga xam ni tuub dafa mel ni ay pneu ci oto pneu yi amul oto du daw nu ko ku baax ki waxe woon rek nga xam ni sunu maam aadama ak sunu maam awaan noonu lañ jéggaloo sunu borom subhanahu wa taala boo ko neexu du leen jéggal waaye da leen jéggal ndax xam na reconnaître nañ seen erreur moo tax def dara reconnaître ko lu am am solo la xam ni yow juum nga nga reconnaître ko lu am am solo la nit ki lu mu tàng tàng ak lu mu mënti mel bu ñëwee wax la ni yaa ko def même bu fekkee sax defoo ko boo xam ne maa ngi tub rek maa ngi jéggulu rek lépp mën a rek maa ngi tub lu mu tàng tàng day say dugg asamaak aji kawe ji nga xam ne ndeysaan yërmande la làmboo ak mbëggeel jëmale ko ci ay jaamam maam aadama wàcc na ci suuf réeroo nañ génn na ci teraanga yu màgg yooyu ko yàlla defoon ci àjjana moom soxnaam ñëw nañ ci àdduna si nga xam ni mettit coono rekk la feese nga xam loo def da ngay sonn ku am ak ku ñàkk ak ku mag ak ku ndaw ak ñépp ci yem lépp rek loo def sonn loo def sax si tuuti rek sonn nga xam ne noflaay nga fële fa ñu jege woon fa ñu nekkoon suñu ruux yi bëgg yàlla ba dof di sàbbal yàlla bu baax foofu ma la noflaay ga nekk yàlla nañ fa delluwaat ca kaw foofu boo fa dematee boo xësee ba demaat fa rek coono yi yépp jeex yu baax yi page tv ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page facebook abonné ci sa chaîne youtube te yaatal kook say xarit ak say am di jàmm